يسألونك الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني إني أسوق موضحا لك خطة تبدو كمثل قلائد العقل التقيان تقرأ بها القرآن سهلا bismillahi rahmaani rahiim bihi min aafati nisyaani axlis allahuma laka sumna wa bika amanna wa ala risqika aftarna faxfir lana maa qaddamna wa maa axarna waj'al dunuuba kabiiraha wa sagiiraha sahaba addamu wabtalat al-uruuqu wa sabata al-ajru inshaa allah alayka bish-shaykh al-mu'ayyad bis-samaa war gaa ngi dem yàlla nañu fi bàyyi bu dul siwaat yàlla nañu fi fekk mbokk yi si defeem seen rajo seen direct bi des àllo naka ngeen koy am marax ko jot ci waxtu wi dellu si na dinañ ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alaaji Sëriñ Mbàkke Sylla ak seen mbokk Alioune Sall min al-ihmal war-rawgani idhab ilayhi walaw bi hir ginnaaw bi tabarakallahu Xaaj Mbàkke ngi nii Xaaj Mbàkke asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu bàyyi la nga nuyoon te gooy déglu jërëjëf Oustaz ñoo ngi leen di fay nuyoo te di la nuyu di nuyu mboolem ñi bàyyi xel euh, jotaayu yi am ci Sud FM seen rajo yëpp rawat na jotaay bi di Yas'alounaka مع خمسة في كل يوم باسم ريان باسم ريان xaaj Mbàkke tabarakallahu ñu daal di tàmbale fañ daan tàmbalee rek incha allah nga fàttali bu ñu xëddee ban heure la ñuy bàyyi tey jërëjëf daanaka soppeekoogut ba tey bu ñu xëddee ba cinq heures dix-huit jot ci la ñuy bàyyi xëdd la ñuy bàyyi xëdd incha allah bu ñu wooree bu ñu wooree ba dix-neuf heures trente-quatre ci la ñuy dog incha allah trente-quatre la ñuy dog di cinq heures la ñuy bàyyi xëdd la ñuy bàyyi xëdd incha allah tabarakallahu xaaj Mbàkke am na solo <laughs> jërëjëf daa nga ñu fàttali tam programme bi waaw ginnaaw kay xanaa wax ne tey yaa nga doon mitine fële ca Géejawaay. Mhm. fa ñuy wax euh, monument jàmbaar. monument jàmbaar euh, naka mitin ba. waaw la hmm. waaw mel na ni mitin yi weesu de. Mhm. waaw te ñoom seen bosu ren bi moo gën a kii ya daan weesu. ren daal lañ ko gën a euh, num tuddati. moom kay tabarkalla. <laughs> laajte nañ la nag. ndeysaan mitin bi daal mel na ni. Mhm. tabarkalla. tabarkalla ndax. meeru koñ baag. meeru wàqinaan ak. yooyu yëpp ñoom ñëpp ñëw ñoom ñëpp ñëwoon nañ ak élimaan yaag notable yaag chef de quartier macha allah waaw daal tey tubaarkàlla daal tubaarkàlla bu mitim doon alaa dawme daal ñu ne alaa dawme na mhm. waaw est-ce que am na solo jërëjëf yal na yàlla àggale waxtaan ci justice sociale waaw waaw justice sociale waaw mhm. tey tey thème boobu ngeen doon traité foofu naka naka thème ba waaw ah def nañ suñ kam lay kattan wax mhm. leen lan mooy maandu ak itam fu mu dépare nan la nekk régulateur pour jikko yi mhm. ku ko ñàkk koy doon mhm. asamaan seeg suuf si <coughs> bu fekkoon maandu amul nu ñuy def mhm. jox leen bi ñu jeexale wax leen tomb yi nga xam ne mooy mooy may daanu may daan yi nga xam ne ci lañu seen tug maandu limal leen ci juróom ba juróom juróom-ñett ba juróom-ñeenti tomb doora ñëw ci missaal leen alayhi salaatu salaam ci maandu Omar ibn Xataab Omar ibn Abdul Aziz tomb ya jeex ñu jógu ci question macha allah loolu am na solo mitin bu am am solo nga fa def kon lay ndeysaan euh, subaa jàmm ci àllarba ji yaa nga war a jëm ba Mboro incha allah incha allah foofa itam war faa amali ji am mitin Daaru Xuddoos Mboro ñoom seen mitin mu ngi jëm ci aljanna mhm. mooy lan waaw ak lu ciy dugal nit. est-ce ah, boobu mitin am na solo. waaw ca fële ca Mboro. ca Mboro waaw incha allah. loolu lépp nekk ci projet de société. Mhm. bi alayhi salaam. Mhm. présenté nit ñi. ndeysaan waaw ndeysaan est-ce que. wallaay am na solo yal na yàlla sàmm leen. wallaay ndeysaan te sàmm mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel. jotaay bi yaa ko am na ku ma woo léegi ni ma waaw léegi ku bëgg a ku bëgg a joxe gasoil ci meeting ma ne ko ah. <laughs> meeting yaa <laughs> yal na ko yàlla yombalal yal na ñu jaajëfal ko te dalal kële di di ñëw sëñ Moustapha Sylla Paris jërëjëf mbokk mi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah bisimilah. Oustaz Mbacke. waaw. Cheikh Gaye naka waa Ngay Ngay Xasan. ñu sant yàlla bu baax. jàmm rek kay. ñu ngi nuyu Oustaz Alioune bu baax. di ko ñaanal bu baax. jërëjëf mi ngi lay fay. di nuyu waa Ngay Ngay gépp rek di leen jërëjëf ñu ngi lay fay. di nuyu Moustapha Gaye. Mhm. ak ci kër Mbaye Fall ak Moustapha Mbaye ci Géejawaay da leen di topp suñu tool. ndeysaan. ñu amal fi benn question rek. waaw. muy question yoo xam ne saa yu ko laaj Oustaz Alioune Sall daal loolu lay commencé muy subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa alamtanaa innaka antal aliimul hakiim barakallah loolu daal lañ bëggoon mu ñëwal na si baaxam <laughs> incha allah waaw jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax ci campagne am na solo. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax moom itam ci duggam bu am solo boobu sëñ Cheikh Gaye ngay ngay xasan. ngay ngay xasan mbokk mi sëñ Bakk mi ngi tudd moor Mbeng ak Sam Seck ña nga nekk ca Touba di ànd ak ñun ci Louga kon di ànd ak ñun jotaay bi. ndeysaan jërëjëf aayaam uh, bi mu laaj ma nga ca surat al baqara nee na daa dégg ñaare bu ñu la laajee laaj bala ngaa tontu rek moom ngay jàng. Mm-hmm. muy subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. waaw loolu day malaak yi dañu am teggin sëñ Bakki. Mm-hmm. ndeysaan. bi leen yàlla ne lii nag. Mm-hmm. rek tabarkàlla mu njaa jël sama laay ji bismillahi rahmaani rahim mm-hmm. subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim mm-hmm. mooy keroog seen examen ba wala seen concours ba waaw seen diggante ak aadama mm-hmm. kan moo war dem suuf nekk xalifatulaay fil ardi kan moo war bi leen yàlla posé question loolu lañ ko tontu bi leen yàlla posé question moom lu lañ ko tontu loolu lu muy tekki mooy dañ na ko subhanaka subhanaka gàcc ngaa laa maa yow ci ku dul yow du yow allahu akbar ñun amuñu xam-xam loolu xamulul xamuñu ko. Mhm. boo nu béré nga nu béré nga boo nu jóg la nu jóg. allahu akbar. innaka antal alimul hakim li fi nekk lépp yaa ko xam. macha allah. moo tax bu laajee tam boo nee laa ilma lana amuñu xam-xam. Mm-hmm. delloo yëf yi yàlla mm-hmm. tabaarakallaahu mm-hmm. waaw jëf am na solo suñ sëñ Cheikh Gueye 88 628 98 98 33 841 22 33 ñoo ngi ci 319 yoo xam ne ñu ngi xaar ci bunt bi bëgg ñu leen diwa ngay ànd ak ñu ci jotaay bi incha allah xanaa kon nga tàmbali di leen benn bennal ndànk-ndànk di benn bennal ndànk-ndànk mbokk bi daa bëgg a bopp ah, asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw koy waaw yàlla na yàlla defal jàmm tax féex. alhamdulilah. kontaan nañ ci yéen ñaan yi moom daanaka du ëpp waaye wax dëgg yàlla kenn amul lu ñuy wax. Mhm, ndeysaan ñu déglu te du ñu woote moo fuuf. dafa am ma doon ah, am ay saar yoo xam ne nii bu ci nit ki tolloo di buy jàng alxuraan. xam nga mhm. day day sujjóot. Mhm. waaw léegi imaam bu ko jëlee. démarré toog ba ci yàgg rek mu mu toll ci dal di tëb rek ne groupe sukk hmm. euh, dem dem suuf hmm. ñu topp ci ginnaaw daal daal di ci topp hmm. léegi bu jógee continuer julli gi euh, su jot ci noo ni koy boole ci julli ci julli gi lay bokk wala euh, daal dama parce que ma koy gis bariwul nag mais gis naa d'accord d'accord d'accord Oustaz ciy ñëw léegi waaw ok waaw. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey rafetlu duggam boobu. kii mi ngi tudd euh, Muxtada Mbàkke. Hmm. mu ngi ca Ngaabu. Hmm. suñu mbàkk mu ni cëy. Hmm. daal ci loolu cëy àdduna. ndeysaan sama soppee ba dem na. ndeysaan. Fallou Cissé Fallou Cissé ndeysaan Baye Fallou na ko yàlla yërëm noonu la ko waxee suñ suñ Murtada Mbàkke wallaay ca Ngaabu wallaay wallaay suñ Murtada daw na yaram daan ci teg ne métti na lool ndeysaan gore ndeysaan ndeysaan jërëjëf métti na ñu ngi la koy jaalee suñ Murtada Mbàkke wallaay am na solo oustaz waaye xam naa bi may ubbi sax laa ci waroon na def ko ab euh, muxaddima mhm. mooy euh, euh, deegu bari gi ci pénc mi oustaz rawatina xale bu jigéen bii nga xamante ne moom waa ji ko rey moom moo defaat ay audioom doon ko jaalee ka euh, yëglee ka tàggee ak yónnee ndekete yoo mbaay moom moo ko def loolu bi nga ko déggee yow jaaxalu la. ah kay. <laughs> loolu garaaw na na ma lool te tiit sax nag. Mm-hmm. parce mm. jot na. Ah, tiit jot na ndax dëkk nit. waaw. nekk ah. wëllëre wëllëre bàyyi. <laughs> man daal jaaxle na. waaw da koo bëgg doone mm. bàyyi may ma ko. bu la ko mën nga seeti keneen. wax dëgg yàlla xanaa tey laa lay su ma jot ci laa lay rey. waaw ñëw nag toog. ba pare yor say nag di envoyé te dégg naa bi ñu koy jàpp si sax ci kër ga lañ ko jàpp si. waaw maanaam muy dalal muy defal nit ñaaka. man maa ngi déglu benn audio mu naan comme nag li bi di wax le coup est de sa partie euh, nañu muñ nañ dellu ci yàlla nañ nàngam man daal oustaz li ma ci jaaxal mooy. ñun ñun ñooy ñan. maanaam nit koo xam ne li ngay wax ndekete yoo toj toj def ba noppi ci kaw di coow. waaw ñun ñooy ñi nga xam ne. Hmm. am nañ fit wu toll ni mhm. li yàlla ne moo fi jël ak ñun am nañ fi du toll ne ko loolu du fi jël ak rey ñun ñun ñoo ñooñu. laa ilaaha illallaah wax nga dëgg de. ñun ñoo dëgër fit ba ne yàlla. waaw parce que dégg naa droit de l'homme yi naan. non peine de bi affaire kii la dellu ginnaaw la kenn xamul ñoom lu bëgg a wax. jeex na léegi nag nan dem rek. fu jëm Serigne Cheikh noonu nañ dem rek. fu ñu jëm oustaz xanaa kay euh, lii moom lu ci dolli kooti lu ci dolli kooti musiba am. te mi ngi dolli ko nag. Uh-huh. mi ngi dolli ko kat parce que. Uh-huh. dugg ci semaine ñu ne cinq morts yoo xam dañ leen a rey. Uh-huh. treize morts yoo xam dañ leen fiir fiir. waxuma accident dañ leen mbëkk fiir leen. gën di garaaw rek. waaw xam nga déggoon nañ fi eh, kooku sax yéen bokk conseil économique social. ab sëfoor ma dem fekku ci néeg ba rey ko. te diggante sëfoor ak njaati géem relation bi war a am nga xam ne nit dana yaroom xaram sax. bii sa xaraw. nit dana yaroom xaram sax oustaz néeg a rey xar mi naan xar mi daa yaroo ci kër gi néeg naa koo rey nit nag sa proche ku la jegee noonu. bii sa bii sa xaraw. bu mujj bii xanaa. daan yëkkati xaalis di la jox. booy dem sa dëkk mu yëkkati jox la yëkkati nangam nuyul ma leen. waaw doo yàgg waaw kooku nga xëy suba teel na ko deq rendi ko ah doy na war doy na waar de ñu ubbi enquête oustaz bu jamono tollee foofu kilifa kim ñi muy war a àndal ñi war a jaxasoog sa njaboot nit ki la war a jege ndax léeg mu lay jooyle saw naqar te li la naqarikat moo la ko teg ah waaw loo <laughs> léegi <laughs> man di jaaxle naa àdduna noonu la ah oui c'est ndax léeg-léeg entourage su nit def noonu mm-hmm. Mm-hmm. waaw mm-hmm. mën a fexe ba dugal la ci garaawal yooyu ndax rey nit ba noppi toog di ko di ko ko jaale. waaw di ko jaale ñëw di jooy di defalaati. ah baax na. Hmm, am na solo yàlla dimbali. amiin yaa rabbal waaye daal dañ ci war taxaw de. jërëjëf dégg président génn na démb. ah oui génn jot na de. dégg naa génn na démb génn jot na de ñëwal ci waaw jërëjëf mbokk mi Oustaz nee na sujjootu alxuraan kuy jàng mu yàgg mu sujjoot bu imaam di jiitee ko julli ba àgg ca def ko euh, lan mooy àtte boobu. ci julli ji waaw àtte bi mooy sujjoot bi dañ ko war a def. Mhm. ndax ulama yi dañu wax ne ku julli ku jàng ba àgg ci sujjoot mhm. da war a sujjóot problème nag mooy sujjóot boobu yokkuwut ci julli gi wàññi ci julli gi soo jàngee ba agsi da nga groupe sujjóoti soo si gëj ca sujjóot ba continué sam jàng tuuti door naka rukkoo door naka rukkoo moo tax sujjóot boobu yokkoo ci julli gi wàññiwoo ci julli gi noonu rek la fa ñëwee noonu rek ñëwee am na solo ñu jaajëfal ko 88 600 salaam wa rahmatullah Alioune Sarr Mbacke Sylla waaw yaaram Pape Sarr Baye na nga def ñu ngi lay ziyaara alhamdulilah ci ñaan oustaz di ngeen ñaanal. Mhm, amin yàlla na ko yàlla kàttan ba màggale mi suñu yëpp incha allah. amin amin yaa rabbal alamin. ñu ngi ko dégg nañ trop moom déggati nañ sax nag. Mhm. dama ñëwoon tey si laaj alquran. waaw. wala tutix man asfalna qablu an zikrina xalbahu hawaahu wa kaana amruhu furtaa. Mhm. beneen ba mooy li wax bu ñu ba pare. dahaba sam waqatil xuruuh. wa sabatal ajru incha allah Mm-hmm. yéen ko incha allah. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax tey rafetlu duggam bu am solo. mbokk mi Lamine Kan Konde la tudd ma nga ca usine benn tali di ànd ak ñun jotaay bi. Euh, laajam ba laaj am na solo ma ngi ca sóoratu Kahfi euh, aaya jaa tàmbalee ci wasbir nafsaka maa alladina yad'uuna rabbahum bil xadaati wal asiyi yuriduuna wajhahu wala taadu aynaaka anhum turidu sinata al xayaati dunya door a wax nag wala tutix man axfalnaa xalbahu an zikrina wattaba awaahu wa kaana amruhu furuta sunu borom nee na ko ñaara nekk ci penc mi mm-hmm. ñaar ñee nga xam ne maa tax ñuy def la ñuy def mhm. mu ne wasbir nafsaka muñal ba mën a ànd ak ñoom allahu akbar ñii nga xam ne taxuñ ma nag dañoo sàggan mhm. bu ci topp kenn doxal nag nu dem muñal ba mën a ànd ak ñi jëm si ci man waaw <laughs> waaw waaye muñal it ba ñee buñ la dëpp xam nga jëm si ci maam waaw seen nelaw doyul déedéet la ñuy sol noonu amuñu oto ki nangam ak nangam mën a ko muñal ba mën nekk ci ñoom c'est-à-dire mhm. foofu mbàkke mhm. muñ ko dafay mën a nekk dëgg la dëgg la benk ñenk yaag yombut yaag yombut la sëñ Cheikh Mbàkke waxoon wallaay yombut mu ne lan dafa dugg ci néeg bi mhm. summi yëreem ànd ak ñaari nit ci kër gi képp kër gépp ñaar fi nekk musum bu ma wekk ko te fekk fukki junne ngi ca fukki junne na mes laa ilaaha illallaah mu yónni kee mu seet seet gisu ko mu jógal boppam seet gisu ko mu ñëw toog mm-hmm. kenn ki ne ko naa ko dabi mu ne ko koy dabi mm-hmm. mu ne ko ah, maa ngi fi nekkoon mm-hmm. kon lii moo ko moo ko jël waaw jël parce ñaar ko na ma ne man jëluma ko waaw te yaa moom jëloo ko kon moo ko jël mu ne lan mu ne ko mm. nit ñi ku leen mënta mu ñël seen sikki doo leen defar allahu akbar waa ji xëm laa ilaha illallah kon wasbir nafsaka ma allasina yad'una rabbahum wasbir nafsaka ma mhm. allasina yad'una rabbahum bil xadaati wal asi ndax ñoom waaw yuridoona wajha yuridoona wajha wala taadu aynaka anhum waaw rek waay sa bët bi bu jéggi ñi waaw yu sew sewaan yooyu ñu def yëpp téewul ci programme bi lañ bokk allahu akbar <laughs> oh. <laughs> lu xóot nga wax lu mu ngoog mu ne ko nag ñeen ak ñoom mhm. wala tuuti man man axfal naa qalbu an dikrina wa tabahawa mhm. ki nga xam ne moom programme aw yoona bokk ci man mhm. mu ne rikk waaye bul ko topp ndeysaan wa kaana amruhu waaw lu dugg muy ëpp mhm. te te xam dong la cay topp du dara ba sukran ci laaj bi am mbokk mi sa laaj bi amatina solo Babacar euh, euh, Pape Sarr bokk asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah oustaz waaw maa ngi lay ziar waaw Mayoro la. ah tey baat bi xam naa Touba nga nekk tax xaw naa sori tuuti. waaw maa ngi tuubaa nag damaa xaw a sori nag. looloo tax waaye nag baax na de jërëjëf bisimilah. maa ngi la ziara bu baax a baax di ziara Oustaz Alioune Sall. jërëjëf jërëjëf. waaw suñu campagne yi ni nga ko amee woon fii ci Touba ci tari alxuraan. waaw. waaye ñu ko tey fële ci waxtaan euh, euh, ji ñuy def ci jumaa ji. waaw ànd lañ nga lañ fa woon tey. kan moo fa doon waxtaan tey. Euh, Abdourahmane Abdourahmane Mbacke. si Abdourahmane Mbacke man moom moo fa doon def am na solo lool mhm, macha allah te bañ fa toogee suñu xel dem na ci yéen ñaar wallahi ñu ñaanal leen jërëjëf waaw ñu ngi leen ziar bu baax nag jërëjëf jërëjëf léegi suñu laaj nag am am nañ fi ñaari laaj rek waaw ak ñaata soble <laughs> maanaam xale boo xam ne dafa judd rek eh, dellu waaw ndax dañ ko sang dañ ko sang dañ ko jullee d'accord beneen bi ci wàllu takkum téere mhm. ndax dagan na wala daganu mhm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi barakaatu aj Mayoro Fall ñu ngi koy jaajëfal. ñu ngi koy jaajëfal sëñ Mbacke mbokk mi mu ngi tudd sëñ Malick Sy. Mhm. nee na doom la ci sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum. ndeysaan ndeysaan. nee na mi ngi ànd ñu jotaay bi. boobaa boo de. bu bu nu deex jeexalee nu woo ko. laa ilaaha illallaah. incha allah sëñ Malick daañu la woo bu nu jeexalee. incha allah waaw. jërëjëf mu tudd Malick mhm. doom la ci Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum. ndeysaan. mu ne bu ñu jeexalee nu woo ko. si jërëjëf si <laughs> jërëjëf Mbacke nag loolu léegi doo lay wax léeg-léeg ne yu di taxaw waaw day jaar di taxaw ndax li muy indi ci jotaay bee tax maanaam yëg giñ ci yëg ak cofeel giñ ci am day ab soññee yarfa ilaahu llaziina aamanu minkum wallaay wala seen utul ilma darajaat jërëjëf darajaat macha allah ñu xaar keneen ñu xaar keneen ma bu juddu di ab liir euh, judduwaale bakkan xëy na wala jooy naag jooyut faatu nan lañ ko war a taxawoo waaw su fekkee ne judd na ba jooy mhm. lu ñuy defal mag dañ ko koy defal magum julit mhm. comme judd na jooy mhm. bu juddee tu jooyu nag duñ ko hmm. defal dara hmm. raxas ak denc rek tabarkàlla incha allah jërëjëf Pape Sarr mi laajoon léegi aaya alquran bi tegoon na ca dhahaba samau wabtalatil aruqu wa sabata al ajru incha allah waaw waaw hmm, nee lu muy tekki loolu ci ñaani la bokkoon dhahaba samau mooy marwa dem na ndax dog na ba noppi ndeysaan ndeysaan wabtalatil uruqu waaw euh, sidid yi sidid yi tàlli na tàlli na wa thabatal ajru pay gaa nga denc yow yàlla ndeysaan incha allah ndeysaan <laughs> waaw lu am solo la jërëjëf ñu jaajëfal ko Pape Sarr jërëjëf jërëjëf sëñ Assane ci fàttali gi mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah barakaatu bismillah Sam Mbacke waaw Abdou Salam Guèye Dalifor Abdou nag waa Dalifor ñu ñu ziar bu baax oustaz. jërëjëf jërëjëf. di ko ñaanal li ñuy def lépp yàlla defal ko ci ak yiw. amiin amiin yaa rabbal aalamiin mboolem ñi nga xamante ne ñu koy déglu. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. waaw maa ngi laaj aaya ah, alxuraan maam saaru alxuraan mi ñuy wax sóor takkaazur. takkaazur waaw. laa ba oustaz ñëwoon ma ci. allah mi ngi ciy ñëw léegi. oustaz man laa yaat tey ñun ay électricien lañ. Hmm. électricien oto. léegi hmm. yenn saa da dem ci atelier di jënd euh, bagage. Hmm. waaye yenn saa lay jar waaye yéen moom gannaaw si ngeen bokk. Mhm. daañu la si wàññil temps. d'accord ñu laaj ba xam ndax loolu bu ñu ko lekkee dana dagan wala déet. jërëjëf bëggoon naa ci usa leeral ñu si daal. incha allah. Mhm. ñu ngi koy jaajëfal baax tey rafetlu moom i duggam bu am solo boobu. mbokk mi mu ngi tudd aboo Ndiaye eh, ak papaam Ndongo Ndiaye ak yaayam Maymuna Sall ña nga fa ak soxnaam jaara eh, maam jaara eh, soxnaam. Mhm. ña nga fële ca. Kaolack di ànd ak ñu jotaay bi. ndeysaan ñu ngi leen di jaajëfal bu baax te di leen ndokkeel. mbokk mi maanaam kon ñoom dañoo toog ñoom ñëpp. waaw tiim rajo bi <laughs> nee na ñoom ay commerçant lañ wala ay liggéeykat yu demee noonu mécanicien ak yooyu léeg-léeg nga am pièce booy jënd xëy na da ngay wax waa ji ne ko pièce bi nangam lay jar. Mhm. nga dem ci aji jaay ja mun laa yow ko ci kër gi nga bokk nangam laa la koy jaayee kon muy laaj ndax loola kon bu boobaa lañ ca wàññee dagan na wala déedéet daganu de lañ mhm. ca wàññee mhm. ka yónnee ko moom waaye ki ñu ko ka yónnee mm. moo ko moom mm-hmm. alayhi salaatu salaam dafa amoon kum yónni mm-hmm. mu jëli impôt ya azaka ya mm-hmm. ñu jox ko ko ba noppi def beral ko benn enveloppe bu def dara ma ci misaal jox ko waa ji yóbbu loola këram waaw yónni daa woote ci jàkk ja ne lu tax ku ñu yónni lu ñu la fa jox nga defan yaa ko moom allahu waa ji jóg taxaw ne ko ah, mañ ma ko may de <laughs> yónni wax ak ma ba ne ko demal nga jëli ko indi ko ñu séddoo ko ndax noo ko moom macha allah waaw shukran ci laaj nee na ah, ah, ah, alhaakumu takaasur xataa surtumul maqaabir la bëgg nga tënkal ko ko waaw sunu borom daax foofu ne hmm. li li yitteel nit ñi hmm. mooy maa la ëppale hmm. maa la ëppale maa la ëppale ba xëy dem yoof tëdd loolu rek la tubarkalla jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk mi 88 628 98 98 asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah bismillah alaaji Abdoulaye Karim waaw ku baax ki kan la. Mbaye Sakho Kaolack. Mbaye Sakho nanga def. na nga rek la. jàmm rek kay. ñu ngi leen bu baax de. jërëjëf jërëjëf Sakho bisimilah. Eh, di leen ziyaara di ziyaara Oustaz Alioune Sall bu baax a baax alhamdulilah tubaarkàlla. di ziyaara waale seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye. jërëjëf. Eh, ndax xam ne wax dëgg yàlla yéen yéen a ñuy bégal di ñu tagal fan toolu. daal alhamdulilah jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Eh, di jottali ustaas ni ñu ko faral di wax rek nuyoo waa Kanda fii ci Kaolack. jërëjëf mi ngi leen di fay. ak mbokk yi nga xamante ni ñu ngi koy déglu am na mbokk mi ñuy wax Karim Seye. waaw. ak Malick Anne nee na suñu tool yi ñu koy bàyyi te di ko déglu bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. ñu amoon benn laaj rek ci suuratul mujaadala. waaw. Eh, di aay bu mujj ci ci saar wi. Mhm. borom di waxee laa tajid xawman yuminuuna ilaa aaxiri aaya mhm. bëggoon oustaz ñëwal leeral ñu moo taxoon mu wàcc ak lan lañ mën a jàngalee daal. d'accord jërëjëf. Mhm. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey rafet lu duggam bu am solo boobu. kii Yacine Diop la tudd nekk ca Ali Imran waaye nekk fële ca kaw Kaolack xama ca Saint-Louis. Mhm. nee na mi ngi ànd ak ñun jotaay bi di jaale Fallou Cissé tarkala ñu ngi koy jaajëfal mbokk mi ci suurat al mujaadal dem aaya 22 mhm. laa tajidu xawman yuminuuna billahi wal yawmi al axir yuwaaduuna man xaada allaha wa rasulahu walaw kaanu aabaahum ba aaya ja jeex waaw loolu ab ab luwaa la bu yàlla jàngale foofu mhm. nee na ñaar ñi kenn mënu koo boole gëm ma xaritoog ku weddi ndeysaan jàngale gëm xaritoo ku ma weddi. Mhm. nee na munul am. Mhm. loolu lay jàngale. koo gis mu gëm ma. Mhm. bañ na ku ma weddi. waaye koo gis mu weddi ma day bëgg ku ma ku ma weddi. mu ne ñooñu nag même du seen bu ma seen baay bañoon. dañ koy bañ. seen yaay seen mbokk seen famille yëpp. Hmm. buñ ma bañee. Hmm. dañ leen di bañ. dëgg waaye bëgg ma ba noppi nag di ba bëggante ku ma bañ. Hmm. nee na loolu mënul nekk. wallaay ndeysaan wallaay wallaay waaw ab loi la bu am solo ci alxuraan karim tey waaw waaw jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal oustaz te di la jaajëfal jërëjëf mbokk mi jërëjëf sëñ Xaadim Mbay euh, mbokk mi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa yal na yàlla nangu siyaar. waaw ñun daal ay safoor waaw. dem mais dañ hmm? d'accord <laughs> jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax tey rafetlu duggam boobu. mbay Sarr ma nga fële ca ngay ngay Assane nee na di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf ab safoor la neena na nee na seen digganteeg takku der yi ci télé bi daal lay laaj nee na ñu jàpp la <laughs> nga joxe leen 1000 francs wala mbir ya dëgër ba nga joxe dara daal ngir dem muy laaj ndax loola ger la wala déet. déedéet su fekkee ne. Hmm. pexe amul. Hmm. alkaati bi la ko laaj moo lekk ger hmm. moom képp nag nga xam ne nangu laa bindal nangu laa bàyyi nga dem waaw te boo ko joxewul doo dem nga joxe ko ba nga joxe ko hmm. hmm. amula benn bàkkaar insha moom mi ko laaj nag bu yomal xiyaamee su fekkee mille nga ko jox ñun ñëpp lay jox ku ne mille est bu fekkee trois cent nga ko jox ñun ñëpp lay jox trois cent Sénégal yëpp nag laa wax Mbàkke allahu akbar ndax sunu sunu xaalis la lekk Mm-hmm. waaw ku ne ci tëli bi. Mm. <laughs> suñu xaalis la lekk arrêté oto mu jox la dara. Mm. suñu xaalis nga lekk. dëgg la de yow mi joxe suñu xaalis nga joxe. Mm-hmm. Mm-hmm. bu pexe amul nag. Mm. amuloo benn bakkaar. moom mi la ko laaj moo am bakkaar. jërëjëf. léegi-léegi nit ña léegi daanaka loolu làqu làqutul làqutul da ngay romb nii seen ñu joxlante parce que bu la jàppee itam te yorul fu mu la war a bindal waaju laa bindalit mas naa fee gis gone yu filmé woon luy mel noonu waaw au lieu ñu encouragé leen neexal leen ñu ñu bëgg leen sanctionné ndeysaan wallaay doy na waar de. waaw waa ji day def njubadi nga filmer ko ñu ne la ah, lu tax nga koy filmer nag. Mhm. waaw. Mhm. da ngaa war a bàyyi ci njubadi gi rek. ndeysaan yàlla na yàlla yërëm. jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax tey nuyu alkaati yëpp mbokk mi asalaamaaleykum. aleykum salaam. waaw kay. ñu ngi lay ziare a jërëjëf yàlla yàlla nangu ziar. di ziare Oustaz Alioune vraiment tey lañ jëkk woote si rajo. mais li ko waral mooy dañu lool moom. jërëjëf merci comme li mbokk mi wax barki rek ne li muy jàngal te na lool. Mhm. ndeysaan man nag étudiant laa université Anta Diop. waaw góor. dëkk dëkk bu ñuy wax Jinge. Jinge ban fag nga nekk. oustaz mu ne ban fag nga euh, nekk maa ngi def master mathématique. mathématique ngay def master. macha allah mais ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi bëgg lool daal si si baax di jàllale daal sunu kàddu mbégte. jërëjëf noo tudd. Abdou Dem laa tudd Abdou Dem Abdou Dem. waaw jërëjëf rafet na. waaw Abdou Dem yàlla na amana a amana rasul dëgg la jërëjëf. jërëjëf dem Deme. yàlla na nga dem. <laughs> ñu jaajëfal ko ba oustaz. barkal laa tastaqil bi rizqi. Mhm. isra bul wara mutakaffilun rizqa la yata'allamu. ndeysaan leen jëriñ loolu yéen waa yéen étudiants yi. loolu muy tekki <laughs> loolu nga boole étudiant bi noonu. waaw hmm. sunu borom waaw ah, sunu sunu sunu sunu maam ja def ne. Hmm. kuy jàng du business. Hmm. laa tastaxil bi rizq. waaw. kuy jàng du business. kuy jàng du business. kon jëru étudiant di yoraale téléphone am naan damay jaayaale. ay kii déedéet kuy jàng du business. Eh, damay def transfert ak damay nangam dama ko ciy boole yooyu jëru ko jàngal rek. ñu ne mun a jàngal rek is. Hmm. rabbul wara mutakfilun risqa allazi yataallamu sunu borom ma ngi la dencal. jàngal rek ba noppee hmm. mu sotti lépp nga ne ah li di fooguma koon ndeysaan waaye ba dee business loolu day rëcc est-ce la ñu jaajëfal ko jaajëfal mbokk bii di Fallou Fallou Sow mu nga ca Touba Kër Ñang di ànd ak ñun jotaay ñu ngi koy nuyu di ko béggee lool oustaz euh, di jël mbokk mais daw di ñëw asalaamaaleykum allo kooku génn na oustaz ñu jaajëfal ko oustaz mhm. Mhm. sëñ Badara Ndaanaan suñu xarit bee moo yóbbanti laaj bi mbokk ko yóbbanti jombut ci internet bi mu ne lan moo wutale faqiir ak miskin jërëjëf waaw. baax na mu ne lan moo wutale faqir ak miskin. faqir mooy koo xam ne amut. Mhm. miskin nit mooy koo xam ne amut. Mhm. xam nga li leen wutale. Mhm. faqir mënta yalwaan. te mën naa yalwaan. est-ce waaw. ba tax sunu borom ne bu ngeen di jox asaka. tàmbalee leen ci ki mënta yalwaan. ndax kee moom ma nga yalwaan yi. bu ngeen noppee ci ki door dem ca kële. loolu moo leen wutale. macha allah. faqir amut. miskin amut. waaye faqir mënta yalwaan. tubarkàlla jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax vingt heures jot na ba tey ñeent fukki simili ak ñaar ñetti minutes daanaka moo des ci ñu yëkkati ak yéen suñu jotaayu yes alunaka bi fi diini wal xayaa ñu xaar leen basimin rayaani majmuuha fi sittatin ya saaxibi tiscuuna satran wudixat bi bayaani fi saabici alayaami raajic ma mada lituthabbita almaxfuuda fi rusxaani in shita faxfad xamsa in sixta faxfas xamsa ayatin fa xat asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw bisimilah soxna si. waaw. ñu jërëjëf ñu ngi laa fay. ah oustaz man daal damaa bëgg yaa oustaz Alioune Sall ngeen jàngal ma tajwid. tajwid ah. <laughs> man daal li xale yi def moom. <laughs> ah bëgg a kii bi. damaa bëgg dem ci joŋante bi. roliyaa bi daal nga bëgg. waaw hmm, man mi de xam naa ne. waaw <laughs> waaw bu ma la wootee daal bu ma benn benn lee bu ma jël. d'accord. <laughs> ndeysaan <laughs> jërëjëf mooy jigéen ji njëkk a woote ci waaw yëf wala sax fan yëpp waaw yëf aluna ka moom ñaari jigéen ñi dañuy topp ndogu léegi ci aju ndeysaan kii mu ngi tuddi Ami Ndiaye mm-hmm. mu nga ci kër Daouda Cissé eh, di ànd ak ñun Ndiaye mooy xale ba ma doon tudd keroog Thiès mu ne këpp ndeysaan ah moom la moom la waaw ndeysaan ñu ngi koy jaajëful baax a baax wallaay ndeysaan jërëjëf kon xam naa ñu. waaw kay daanaka daal di tàggoo bu fekkee amul kuy fëgg fëgg na. ñu dalal ko muy auditeur bu mujj bi ci jotaayu yes alunaka bu tay bi mbokk mi daa bëgg a bokk sëñ Doro la jërëjëf asalaamaaleykum. waaleykum wa rahmatulah. bisimilah sëñ Cheikhouna. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax. jàmm rek kay si la waaw tubaarkàlla kay cate woon nga tuutee tee oreel bi bàyyi a dugg solo oyof na tooy. alhamdulilah di rafetlu doxalin. jërëjëf. di wax ne oustaz ko doon wax ngay def. Mhm. ku bëri médecin da ngay faatu. Mhm. ba tax yàlla dogaloon moom ñun ñu euh, féetewoo seenum njàngale doy loo leneen lool. ndeysaan léegi ñu bëggoon oustaz ñooñu ci ñan ñooy wayjuru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ay wayjuram lépp waaw lépp lu ñu jox rek ñu doy ko incha allah. jërëjëf mu ca xewal. jërëjëf Seexuna ñu ngi koy jaajëfal oustaz mooy auditeur bu mujjub tay bi waaw waaw di jaajëfal mbokk mi nga daam fàll tudd ma nga ca gaawaan di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf oustaz étudiant bi génnoon léegi sa taalibe bi boobu nee na amana rasulu la doon laaj bëgg nga tënkal ko waaw amana rasul day laaj laaye la ju wàcc juy wax na yonent bi moom li mu wàcc ci moom gëm na ko mu'minoona yi ànd nañ moom moom gëm ko est que moom ak mu'minoona yi mhm. du ñu tàqale boroom xam-xam bi boroom xam-xam bee mhm. yonent bi yonent bee ñoom ñëpp lañ bool rek ne gaa yaa ngi nii wallaay ndeysaan loolu am na rasul di jàngale macha allah mhm. laajam bi ci topp oustaz moom mbokk mi wala bokk euh, sëñ Seexuna mi mujj génn léegi mhm. neena na bëgg daal nga ñëwal ko ci way juri yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñooy ñan alayhi salaatu wasalaam mhm. ñaar ñu baax a ko jur ci yàlla préparé ndax ku mel ni yonent bi mbii fañ du ko jur déedéet déedéet waaw ndondi du ko jur wallaay ndondi waaw <laughs> ndondi moom mooy lan mu. <laughs> cey ndundi. waaw <laughs> xanaa mooy ku jëmut fenn. mooy ku jëmut fenn. <laughs> am mandar yi. du ko jur. ayca. Abdul Mutalib mii maamam sax. Mhm. su borom da koo préparé. Mhm. ndax ku war a yor yuruntu bi foog nga yaru. ndeysaan. waaw Abdul mhm. Mutalib. sunu borom koo préparé. ndax ku ma ku war a préparé yuruntu bi. foog ñu préparé la. ndeysaan dëgg la. waaw. baayam nekk Abdallah. yaayam nekk Amina. ndeysaan. ku ci nekk xam nañ kuy sa baay kuy sa yaay ba ci àddunaan dëgg la waaw mhm. ko ñooñ ñooy ay waajuram ndeysaan coow laag nag ku rëcc penc mi nag ndeysaan ndax ndax yonent bi ay waajuram ña nga aljannaam ña nga sawaraam ña nga nàngam mhm. euh, xobu xël mm. day fees gémmiñu tef ndeysaan xobu xël mm. daa feeñ gém daa fees gémmiñu tef mhm. xaju ci déedéet xël mooy garab goo xam ne xob yi daa rëy rëy léegi tef nag mooy bëy wu ndaw sëñ Mbàkke mm. yonent bi dox ak kenn déranger ko. sallallahu alayhi wa sallam déedéet. waxee kenn mu tiit. Mm-hmm. war caa lox bay xëm. Mm-hmm. ci baayam lay fayu. Mm-hmm. bu ne waa ji dañoo dóor sa baay aw yet. mu yuuxu. mu ne ko même sama baay dóor nañ ko yet ndax moom mu noppi. allahu akbar rek. te fekk waxiinu jàngale la. waaye kenn du moom allahu akbar kenn du moom.

Mboro incha allah war faa waxtaane ji lan mooy aljanna ak nan la ñuy def ba dugg ca. <laughs> tubarkàlla lan taxul si rek déglu. ñu ngi gërëm OK TV. Mm-hmm. ci am na ñu may tàmbalee wa naan ma ñu ngi ñu ngi seetaan. macha allah ba gis nañ ca sëñ Mbàkke si laag ñoom seen i ci ndax. ndeysaan nangam nangam daal. ndeysaan euh, jërëjëf surtout waa Thiès yi. ñoom Aminata Diallo ak ñu mel ni ñoom. jërëjëf ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp tey nuyu waa OK TV ca kaw ca kanam. incha allah